K24 Info, l'information sur mesure. Nous jóge ci loolu def santé gratuite santé gratuite mooy à partir de zéro âge ba 100 ans képp ku feebar ci dëkk bi ak mbooleem feebar bu la mën ci man monsieur le en charge doo francs da nga ñëw fii ci ticket nga dem clinique pourquoi les cliniques lu simple parce que mon ma ko hôpital public yi mooy poste yi ma xam sama compétence ce bob su boobaa état central mon nom ma bloqué parce que ñëpp xam ngeen man opposant la am amour ci biir dëkk kon que nag xam naa loolu mën na am ay blocage moi jugé nécessairement que ni am na lu loi may su ma li ma loi may kenn mu kenn mu ma ci bloqué muy lan muy partenariat public et privé loolu ñu les PPP partenariat public et privé bob laa jël man en tant que public ma dem ci clinique am privé lañ ma signé am convention il est nani

fànn feeg ñoo ngi nekk ci danger ñu war ñoo war ñu daw danger boobu moo tax ñu jël risque boobu am na sax li gën a grave parce que am na ay canal yu tijjeeku woon mën nañ dugg ci fossé dem suñu yoon mais tey xëy na amour bi ñu am moo tax yàlla protége ñu ba génn si jaan jën nañ ay groupe groupe yu doy mooy ay moto pompe moto pompe bi ni nga ko ni bi nga ko jëndee tamit dañ ko jël ni képp ku soxla moto pompe yi ñëwal ci mairie bi lu jox la moto pompe mais boo dañ ko indiwaat parce que ci xam bi ñuy gérer war a gérer commune bi du yaay du jaadu nit ñëw nañu ko jële moto moom bu ñu may la ko parce que kon bu déwénee da nga ko jëndiwaat dañ la koy abal boole ko carburant nu jox la ko boobu boo paree nga indiwaat suñu moto pompe yi bu keneen soxla ñu jox ko parce que commune bee moom moto pompe yooyu ci noonu aussi la ñu nekkee ba fexe nañ amul benn weer bu suñuy contractuel wala ñu am suñu euh, ñi xam te ne ay permanence lañ ñu am seen seen seen CDI am difficulté de salaire commune fay nañ salaire yëpp mais ci noonu tam budget bi ma joxoon man xam te ni man ma moom la ñu voté leen daaw budget bi dama ko dépassé maanaam bi Kër Massar gi nekk benn commune li mu doon am di ko dugal ci commune bi man bi ma ñëwee damaa doublé loolu kon loolu ci résultat yi la bokk mais fexe nañ tamit ba fin d'année bi ginnaaw bi ñu dimbalee nit ñi ci sa yi mais fexe nañ ba fin d'année bi aussi def nañ ay décoration yu am solo yoo xam te ni budul Kër Massar doo ko gisee de de l'indépendance parce que loolu yëpp ci commune bi la bokk. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.